buur bi nga xam ni jomb naa wutal moroom juleeti it ci soppeem ba moom mi mu tànn daaf muy buntam ba te sante seex bamba bu wete yeesul feddli ak njébbal fasaad góor góorlu ngir xam ni moom lu yàlla def xadimi lil Mustafa muy jëwrinam ju yéeme te jéema way se xam lu xaadar Mbàkke ak doonte lottanaa bi doona sakki moo doon na Bàmba tey donoom ci lislaam moo foog sunna moo nu doy fa sun amaam amul moroom ngeen ji maam mooy ki ko doon ku dib jullit seere na moo mat li mu doon ñëwam nga fii ci àddunaay sunu texe mi mbiri rëy ku dul boroom doogo fexe doy ci ay kéemaanam ak ay mbootam ganeem nga àdduna batax tax dañ koo lëm ajuma ñetti fan ci weeru tam xarit lëmbër ma feeñ seytaane tiit jàq bërët lislaam di ree ngir ab kenoom sampootina kéefar bi jooy ngirum sañ faral boo wootee lu mu xat-xat ak loo ko ñàkk-ñàkk a woote kenn ku ne day jàpp ne mënta ñàkk ñëw loolu ma waral ñoom ñëpp ñu bokk teew tey tarixa Sénégal yëpp teew nañu te ñuy teewal tarixa it ay kilifa lañu fa waaye mu tàmbalee ci ambassade yi nga xam ne waaye mu tàmbalee ci corps bi nga xamante ne ambassade Égypte ñëw nañu monsieur excellence monsieur l' ambassadeur de la Libye mi ngi nii toog. excellence monsieur l' ambassadeur de la Palestine mi ngi nii toog. excellence monsieur l' du Maroc bëggoon naa ñëw ba démb. waaye dafa mujj am gànt lu ko dab. mu woo sëñ Ahmed Saloum téléphone wax ko yemu ci mu bind lettre yónnee la ko yow Cheikh Modou Bachir. signé ko de sa ngir won la ne bis bi ñor na ko lool. monsieur le premier magistrat de la maire de de la maire de Thiès de la mairie de Thiès monsieur mi ngi nii toog di sa xarit di sa soppe. sa xarit Cheikh Ahmadou Kara le général de Bamba. yabal na fi waa këram muy yabal fi nijaay langayam Serigne Modou Ngom. ngir mu teewal ko ci docteur Abdoul Aziz Kébé di sa soppee di sa xarit di kenn ci yow mi ngi nii teew Cheikh Ahmed Tidiane Samb jiite ONG Al Ansar mu ngi fi teew Cheikh Seydil Mokhtar Kunta di xalifa Baye Sid Lamine Kunta bu Njaasaan di sa xarit di sa soppe mi ngi fi teew oustaz Mouhamed Fall bu télévision Futur Média mi ngi fi teew Serigne Maodo Cissé bu Pire mi ngi fi teew Serigne Malick Ba di porte parole xalif Bambilor di ku la sopp lool Mbacke di ko am jàmm lool ak taalibi Serigne Touba yéen ci dëkk ba léegi la ko sëñ Mamour Bousso mii di seede te sëñ Mame Mor mooy imaamu Bambilor kon lépp lu mu seede en tant que imaam lu wér la imaam Dame Ndiaye imaam Ahmed Dame bu 2STV Ligue des imams bi nga xam ne moo jiite euh, Ligue de des des imams et prédicateurs islamiques du Sénégal. teew na fi ànd ak imam Aboubacar Faye. teew na fi ànd ak Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. Cheikh Assane moo leen jiite. ànd ak xaar yi dëkk ba di sëñ Mor Mbaye. ànd taalibe. di sa lépp. di monsieur le la Talla Sylla mi ngi fi. El Hadj Idrissa Gaye. El Hadj Idrissa Gaye. jiite ashabul kahfi ci Sénégal yëpp. di conférencier au niveau international. moom it mi ngi fi teew. sëriñ Madika Seck bu Cenaba. di sa xarit di sa soppe. mi ngi fi teew. ànd ak sëriñ Cheikh Tidiane Seck. xalifa Baye sëriñ Moudou Seck. sëriñ euh, sëriñ Dame Ndiégène. mi ngi fi teew. teewal fi mboolem waa Ndiégène gépp. sa soppe mbakke di sa xarit. sëriñ Ngañ Demba Sarr. porte parole du xalif général de Thiénaba yónnee na fi teranga yu bari yeewal fi délégation bu rëy ko jiite mooy Serigne Alpha Seck ak Serigne Madika sek Jibril ak Serigne Cheikh Ndaw waaye mboolem ñoom ñëpp nag bi ñu dikkee ki nga xam ne moo leen dalal teeru leen gunge ko ci liggéey bi mooy Serigne Modou Mbacké Abdoul Wadood di kenn ci yow Mbacké di baax di ku woyof di ku jaxasoo ñëpp kon nag Mbàkke moom da doon lim rek délégation yi fi teew kaddu gi nag ni ñu koy defee chaque année dañ koy jox ñi nga xam ne ñoo fi teewal Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin ñu joxal ko ñu wax ko ci turu mboolem ñu fi teew ñëpp rek wasalaamualeykum wa rahmatullah waaye su mënoon a ñàkk sax dees koy far bàyyi. waaye ndigal li ñu fi teg. waaye ndigal li ñu fi teg. moo ñu yëkkatiloo kaddu. moo ñu yëkkatiloo kaddu. kaddu innamal mu'minuna ixwatun. kaddu innamal mu'minuna ixwatun. innamal mu'minuna ixwatun. fa aslixoo. bayna axawaykum. kaddu googule. kaddu googule. mooy li ko waxloo moom. muy kaddu goo xam ne. muy kaddu goo xamee ne. mi ngi jóge ci njabootu. mi ngi jóge ci njabootu. Abdoul Aziz Al Amin. Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin. sëriñ bi jëm si ci yow. jëm ci ci yow Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir. ci ndigalu sëriñ Babacar Sy Al Amin. ci ndigalu xalifa ba sëriñ Babacar Sy Al Amin. ak ay rakkam. ak ay rakkam. ñi ma ko bokkal ñëpp. ñi ma ko bokkal ñëpp. jëmee ko ci waajuram bu baax wi. jëmee ko ci waajuram bu baax wi toog. di Cheikh Mouhamadul Bachir. di Cheikh Mouhamadul Bachir. moom sëriñ Abdoul Khadir Mbacké kon nag tey ñun ñoo ñëwaat ñoom ñoo ñëw fekkat fekkaat la fi fekkaat fi ak kilifa yi di la seedeel ne ne njaboot gi nga xam ni njaboot gi nga xamee ne ñoom nga doxale sa diggante ak ñoom ñoom ñëpp ñu ñu tedd euh, Talla Samb Talla Samb dëkk Tiwaawan dëkk Tiwaawan di ko baax Cheikh Nasiruddin di ko baax kaddu yooyu daal sëriñ bi moom la ñoon indi rek muy kaddu cant teg ko ci sa loxo fa tabaarakallah bokkee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir kaddu yii may bëgg a wax day kaddu ndigal te sama sëriñ cheikh Seydi Mouhamadul Mansour dama daan dégg mu naan ndigal ndigaale ndugal ndigal tax ma wax waaye sani atan si mi wax yóbbaale géew ñi ñëpp ndax al amin mi ko daan yebal mooy sunu kilifa te ida xadaral ma batala tayammum bu dul woon loolu professeur docteur Abdoul Aziz Kébé mii ma dendal Thierno Malick Ba mii ma dendal nga xam ni samay kilifa lanu ak mboolem ñu teew waaye Cheikh Ahmad Saloum mii nga ñu booleel ñun doomi daara yi fi teew yëpp at bu ne ñu am yéene yàlla di dogal mu ni fekk bitim réew ma gëj ci lool ma ñaanoon yàlla fekke ren ndax bor boo mënu la fay loo am da nga cay dugal Cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Khadr ñii ñëw wuy si la ñëpp ñëwuñu lebal la dan la yoreel bor te mënuñoo fay ñuy avance ku xewle nga ñëw mbaa nga yónni sa ndaw def fa sa alal Cheikh Mat Saalu mii nag yàlla dogal ñun mu dox suñu digg ak yow Mbàkke ñu ngi lay seedeel loo xam ni xam nga ko wallahu shahidun ala ma naqul li ñu lay seedeel mooy pusaam la yor di ñaw di wax sa tur di jëf sa tur wax naa ni atu rahma moom day nit bu waxee ba ñëpp dégg ko war naa jëf ba ñëpp gis ko bisu alquran bi muy def Cees da ko tudde sunu maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh atam Serigne Maodo ci da baax départ Tiwaawan ànd ak délégation ñëw ni bis bii du yónnee damay ñëw taxaw ba ñëpp gis ma ngir wane lu rafet li Cheikh Ahmad Saloum Dieng def kon Mbacké loolu nga xam ne moo dox suñu digg yow ñu ngi la yëgal ni loo ko yónni ci ñun ak sila buy wax ñëw na buy jëf ñëw na buy teewaay ñëw na moom mii dama ko ni Cheikh Ahmad Saloum damaa bëgg ñun doomi daara yi daje ñu waxtaan ndax Cheikh Mouhamadul Bachir lu ñu xew mu teew te ñoo ba ma waxee ak moom mu ñëw wax ak yow nga ni ko lii laa bëgg ñu def ko te yem fii moo tax ñu yem fii Mbàkke yàlla nga gudd fan Mbàkke yàlla nga wér Mbàkke yàlla boo jéem loo tëlee yonent yàlla Sakariya dani woon wa inni xiftu mawaliya min warai wa kaanat imraati aaqiran fa habli min ladunka waliyan yàlla ni ko loo koy doyee mu ni ko yari suni mu donn ma wa yarisu min ali yaquba mu donnu kër maamam wajaal ko rabbi radiyan nga def ko doom ju ñuy tiitaroo mbakke tuuba gépp ñu ngi lay tiitaroo waaye l'islam bépp ñu ngi lay tiitaroo sa kër lii may wax sama baay alaaji xalifa nee na ma idrissa mag looka ko jayee xam na ko xam ngeen ni l'islam bépp mbakke mi ngi lay tiitaroo ci sa démarche ci réew mi ci bitim réew ci yore puso sunu baay ba sunu sëriñ ba defoon la frère defoon la xarit daan waxtaan ñuy dégg mu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin loo xam ne dégg nañu fekke nañu bët bi mu la daan xool ak ñeewante gi ak ñaan ci loolu nag mooy rogalaat ci doomi soxna yi fi teew yëpp mën naa tudd ñëpp nag ndax xam naa ñëpp ndax alaaji daam njëgën male ba ca cat mën naa tudd kenn par kenn ndax ñoo bokk grand place di ànd Ahmed Saloum waaye Mbacké desee loo ñu dara dama bëgg mbooloo mi nee na desee loo ñu dara li ñuy daal mooy fan wu gudd wu ànd ak wér loo songu daan ko loola songu daanu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh je suis très content que je suis à Touba avec vous, cette beau avec son ce grand monsieur Mohamed El Bachir nee na am na si nous qui donne quelque chose s'arrête pas et dans ce cas-là notre frère on vient ici pour prendre le barca, pour dire merci au Dieu qu'il y en a toujours des enfants qui pierrent à leur vie, <coughs> qui fait le nécessaire à leur village. Mhm. Et vraiment, j'ai l'honneur que je viens de Libye à cause de mon frère que je le connais 30 ans ici, mhm. qui m'a invité pour voir ce grand monsieur chez même. Mhm. Tabarakallah, Masha'Allah. on dit les khalifs bêtes, Mehmet, mhm. qui dénonce, il ne manque jamais. Ah, et Dieu le garde et donne longue vie. kañ jërëjëf. jëmale ko si mboolem senegal gépp jëmale ko si mboolem jullit yëpp sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm lii defoon nga ko daaw joxoon ñu kàddu ñu yëkkati wax sa baax rek mbàkki moo tax nga jox ñu ko ak wan àddina bi yëpp nii. ñun ñii kat te Serigne Touba lañu député islam yëpp lañu ci réew mi lañu bokk. wane adduna bi yëpp ñun ay taalibi Serigne Touba rek lañ bëgg a doon Mbàkke sa jikko ju rafet ak sa taxawaay bu rafet ak sa jëf ju baax daj na adduna bi Mbàkke léegi loolu moo waral mbooleem koo fi gis na nga xam ne yaa ko lebal Mbàkke day ñun ñu dëkk ak yow. bis bu yàlla sàkk dañuy ànd ak gën a am feexte bu baax a baax a baax rawatina kàddu yii nga xamante ni dégg nañ ko fi mbàkkit jullit yëpp lay sagoo rawat na yoonu murit bii nga xamante ni amul lu dul moom te sa mag ju baax ji sëriñ Muntaxa Mbàkke ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér mujj léppam jox la ko wane ni yaay kaddam yaay làmmiñam yaay bëtam yaay tànkam ku la jàpp-jàpp sëñ Muntaxa ku la bàyyi bàyyi sëñ Muntaxa ñun day mbàkki jàpp nan la te duñ la bàyyi ba mukk di woo ñëpp nag ni man mii di wax ak yéen day taalibi sëriñ Touba rek laa bëgg doon fee ma nekk ci penju ndaw réew mi di liggéey sëriñ Touba ak diina ji loolu rek laa bëgg a doon bëgguma nekk leen bu ma amee daal mbàkki seen ngërëm am naa lépp di seen ngërëm nag moo ma jaral lu nekk ba heure bu ñu yëkkati sama kàddu intérêt Touba rek tax ma koy yëkkati kon mbàkke maa ngi lay seedeel ni ñu ngi gën a fetlu suñu kóllëre ak suñu taalibe mboolem ñi fi teew na leen wér ni sëriñ bi daal kontaan na bég na mi ngi leen di ñaanal li ngeen fi indi ci aw yiw muy ay tànk yàlla na ngeen yóbbuwaat yiw woowu noonu xolom sedd na bu baax a baax ci heure bu yootee gis leen ndax sëriñ baskat ñii nga fi gis bërut foo ko fi dem fekk leen fa kon sa jikko la jikko nag ak borom ji yàlla moo koy dogal si yow sa juddu baax na waaye sa jikko baax na ku xew le dem nga fekki ko ku xew la yónnee nga yaa ngi dox loo xamante ni ñi si kaw sax yëguñu ko mbàkk li si biir moo ëpp li si kaw kon ñu ngi la nga yàgg fi loolu te wér te yàgg woote bis bi te yàgg laa wuy si te nga daj si ngërëma sëriñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. incha allah sëriñ Sall bisimilah. sëriñ Saliou nee na asalaamualeykum. sëñ Saliou nee na mi ngi nuyu bokki julli fi teew yëpp di nuyu mboolem kilifa yi kenn ku ci ne fàttewul kenn di am mbégte lool di yëkkati kaddu fii ci kanamu Serigne Bachirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke nee na mi ngi la ñaanal nga yàgg fi lool te ne tànk ne tànk yi fedd si kóllëre la. kóllëre ga nga xam. kóllëre nga xamante ne. amoon nga ko ak seen wayjur. ab sëriñam la woon. ab sëriñam la woon. waaye la waaye nag ab xaritam la woon. seen diggante. seen diggante. ñëpp xamoon nañu ñëpp xamoon nañu ko. njaboot gi xamoon njaboot gépp xamoon nañu ko. moo tax. moo tax. ñu ñëwoon rek. ñu ñëwoon rek. doon fedd li si. ak taalu bi. ci suñ diggante ak yéen. ngay seen kilifa. lépp loo ci lépp loo xam ne. jàpp ngeen ni jàpp ngeen ne ñoom waruñ caane. am ngeen sañ-sañu wàññi am ngeen sañ-sañu wàññi leen ci. di ñaan seen toogaay bi yàgg fi. di ñaan seen toogaay bi yàgg fi lool. di ñaan seen Tuubaa guddal fan. sunu borom guddal sa fan ci barkeb sëñ Tuubaa. mot li yéeneem ci liggéeyub sëriñ Abdul Xaadir Mbacke. sant nañu bu baax. nee bi muy ñëw nag ñëw na ànd ak njaboot gi yëpp nag. yàlla nañ fi ñàgg ñëw te yàgg la fee fekk. di sant bu baax. di bëgg lool di bëgg lool. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. seen taxawaay ci ñoom. seen taxawaay ci ñoom. day mel ni àdduna bépp xam nañ day mel ni àdduna bépp xam nañ ko. danga nga ciy def sax ba def ci loo xam ni. da nga ciy def sax ba def ci loo xamante ne. ñun ci suñu bopp sax daf ñuy ñoom seen bopp sax da leen di kersaal. taxawaay bi dafa mat sëkk. ndax taxawaay bi dafa mat sëkk. barki démb rek ngeen jógee Madinatu Salaam. ko fa. sagal ko. sag bu rëy. ndax yéen fu ngeen tàbbi rek. sëriñ baa fa tàbbi. kon nag. sago nañ ci loolu bu baax. ñu ngi santaat bu baax. di ñaan ngeen téye leen sunu taalibe. xam nañ ne sax mënuñ mënuñ leen defal dara. waaye nag ngeen yokk leen dimbali rek Mbacke. waaw kañ Mbacke jërëjëf jërëjëf. yéen ambassadeurs yi nga xam ni. yéen ambassadeurs yi nga xam ni. yéen a teewal. nee na yéen a teewal. seeni réewi lislaam ya nga xam ni. seeni réewi lislaam ya nga xam ni. noo bokk diiney lislaam bokk Seyduna Muhammad. noo bokk diiney lislaam bokk Seyduna Muhammad saadatal aimma nee na saadatal aimma alladina xadaroo xaasal maqaam alladina xadaroo xaasal makaan wasaaraku maana wasaaraku maana fi haasal yowmil mubaarak fi haasal yowmil mubaarak yowmu zikra yowmu zikra milaadatu cheikh Mouhamed cheikh Abdoul Khadir milaadatu cheikh Abdoul Khadir Mbacké Ibnul Xadim. Ibnul Xadim. zaadahu llaahu xifzan. zaadahu llaahu xifzan. wa ikraaman. wa ikraaman. fi dunya. fi dunya. wa fil aaxirati. wa fil aaxirati. yéen yu sell yi. yéen yu sell yi. fi teew. yi fi teew. ngeen xam ni. ngeen xam ni. di Cheikh Abdoul Khadir Mbakke. kii di Cheikh Abdoul Khadir Mbakke. li mu doon taxawee fii ci Touba. li mu doon taxawee fii ci Touba. moom ngeen di taxawee fa ngeen bàyyi ko. moom ngeen di taxawee yéen it fa ngeen bàyyi mooy dundal diine. ŋànk ko bu dëgër. ŋànk ko bu dëgër. ba dara du ko ruur. ba dara du ko ruur. sëriñ bi mi ngi leen di nuyu. nee na sëriñ bi mi ngi leen di nuyu. ixwaanana al imaani fil iraada. ixwaanana al imaani fii iraada. yéen mbokki murit yi nga xam ne noo bokk Serigne Touba. yéen mbokki murit yi nga xam ne noo bokk Serigne Touba. Serigne bi mi ngi leen di nuyu. nee na Serigne bi mi ngi leen di nuyu. di am mbégte bu baax. nee di am mbégte bu baax. ci jataay bii nga xam ni. ci jataay bi nga xam ni. jataayub lislaam la. jataayub lislaam la. te xam sëñ tuba ak lislaam. te ku xam sëñ Touba ak lislaam. xam sëñ Touba ak jullit yëpp. xam sëñ Touba ak jullit yëpp. boo ñëwee ci jataay bi boo ñëwee ci jataay bi da nga xam ni liggéeyub sëñ Touba réerul. da danga xam ni liggéeyub sëriñ Touba réerul. ñim fi bàyyi. ñim fi bàyyi. nee nañ ko. Bachir mi ngi leen di sant. Cheikh du Bachir mi ngi leen di sant. yéen ambassadeurs yi fi teew. yéen ambassadeurs yi fi teew. ak yéen yi diine yi fi teew. ak yéen kilifay diine yi fi teew. bàyyi ko ci barab yu fasantikoo. bàyyi ko ci barab yu fasantikoo. ci jamono ju xat. nee ngeen ñëw nag ci jamono ju xat. ndax yi tey adduna yi dafa bari. ndax yi tey adduna yi dafa bari. waxtu wi ci tàng na. waxtu wi tamit sëriñ bi nee na tàng na. xaw naa nawete itam. nee na it dafa mel ni xaw naa nawete itam. waaye coono yi aju ci yooyu yëpp. waaye coono yi aju ci yooyu yëpp. gisu leen ko nee na gisu leen ko. ngir yàlla ngir yàlla. ak jëmmam ji ak jëmmam ji. ak borom bis bu màgg ak borom bis bu màgg bii. nga xam ni jëmmam. nee na nga xam ni jëmmam. day jëmmal istiqaamatu. day jëmmal istiqaamatu. di jëmmal xufraanun minallah. di jëmmal xufraanu minallah. njëggalu ko sunu borom. njëggalu ko sunu borom. feeñee ci jamono. nee bi nga xamante ni Cheikh Abdou Khadir Mbacké feeñ na ci jamono. Serigne Touba dafa wax ki ko doon joxe aw tur. Serigne Touba daa wax ki ko doon joxe aw tur. ne ko li feeg ngay dem. ne ko li feeg ngay dem. ba ba ngay dellu si. ba ba ngay dellu si. koofi gis. koo fi gis. wala mu gis la. wala mu gis la. sunu borom jéggal na ko. yàlla sunu borom jéggal na ko. kon say jéego na gàtt. nee na kon sey jéego na gàtt. ngir yàlla ñi lay gis bari. ngir yàlla ñi lay gis bari. ñi ngay gisit bari. ñi ngay gisit bari. loolu mooy Cheikh Abdoul loolu mooy Cheikh Abdoul Khadir. kon dafa ñëw di nee na kon moom dafa ñëw di yërmande. sëñ Touba it sotti ci moom istiqaamatu. sëñ Touba it sotti ci moom istiqaamatu. te diine ba diine jeex. nee te diine ba diine jeex. mooy al istiqaamatu. mooy al xul innama ana basharun mislukum yuuxee ilayya nee na loolu yàllaa ko wax uh, nee na nee na yàlla na ilayya annama ilahukumu ilahukumu ilahun ilahun wahidun ni wahidun fastaqimu ni fastaqimu ilayhi ilayhi wastaghfiruhu ni wastaghfiruhu sunu borom dafa wax nee na yàlla sunu borom daax yonent bi ni ko fàttalil jullit ñi mun mu ko fàttalil jullit yi ni leen man rek may yàlla man rek may yàlla aw ma ñaareel mu ne ko aw ma ñaareel ñoom ñëppit nee na te ñoom ñëppit nangu woon nañ ko woon nañ ko yow ma alastu ndax yow ma alastu sunu dafa bind ruu yëpp taxaw tiim ñu. nee na ñun ñii fi teew ñëpp suñuy ruu wuute ko woon. nee na ak ñeneen. sunu borom laaj ab laaj. ne alastu bi rabbikum. ndax duma seen borom. ndax duma seen borom. nee na ñëpp seede. nee na ñëpp ne xaaloo ballaa. ñëpp ne ko ankay yàlla. moo tax ci aaya bii moo tax ci aaya bii ma wax léegi. dafa wax ne waxal nit jullit ñi ni maay seen borom. nee na dafa wax yonent bi ne ko waxal jullit yi ni man maay seen borom. bi tawhid jooju jàllee. nee na bi tawhid jooju jàllee nag. istiqaamatu la ca teg. nee na istiqaamatu la ca teg. fastaqiimu muy fastaqiimu. ilayya ilayya. jóg leen jëm si ci man. jóg leen jëm si ci man. te jaare ko ci al istiqaamatu. te jaare ko ci al istiqaamatu. istiqaamatu mooy doo jàdd ci ndeyjoor. istiqaamatu mooy doo jàdd ci ndeyjoor. doo jàdd ci càmmoñ. doo jàdd ci càmmoñ. doo gersu. doo gersu. te it doo dëpp. nee te it doo dëpp. da ngay dëgmal rek. da ngay dëgmal rek. lu jafe la. nee na nag lu jafe la. jafe googu nag moo taxoon. sëriñ bi nee jafe jooju moo taxoon. Seyduna Muhammad. Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ko sunu borom waxee ni bi ko sunu borom waxee ni fastaqim ni fastaqim kama umirta ni kama umirta neel cocc ni ma la ko digalee neel cocc ni ma la ko digalee moo tax mu ni nee na moo tax mu ni sayyabat nii ni sayyabat nii suuratu huud nee na ni sayyabat nii suuratu huud bi ma yàlla waxee ni nee bi ma yàlla waxee ni fastaqim kama umirta ne fastaqim kama umirtu wax ji dafa diis ba. nee na wax ji dafa diis ba. daf maa yóbbee njàqare. nee na daf maa yóbbee njàqare. ba sama bopp bi jaaw. ba sama bopp bi jaaw. te sama bijaw jaaw jotul. nee na te sama bi jaaw jotul. kon xam na responsabilité. nee na kon xam na loolu responsabilité la. istiqaamatu muy nee na loolu mooy istiqaamatu. ku ñuy wax euh, Soufiane ibnu Abdullah. ku ñuy ibnu Abdullah. ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko damaa bëgg ne ko damaa nga dénk ma loo xam ne mu ne ko yow yeneen bi nga dénk ma loo xam ne dana ma jariñ dana ma jariñ tey dootuma ko laaj keneen tey ma ko laaj keneen yonent bi ni ko ne sallallahu alayhi wa sallam ni ko faxbut rabbaka mu ne ko faxbut rabbaka jaamul sa borom jaamul yàlla sa borom nee na su mastaxim boo ci noppee nga teg ci istiqaamatu boo ci noppee na nga teg ci istiqaamatu istiqaamatu nag lu na istiqaamatu nag lu jafe moo tax sunu borom bi mu ne fastaqiimoo ilayhi wastaxfiruhu la ca teg nee na wastaxfiruhu la ca teg tax mu lënkale nee na li tax yàlla lënkale leen jafe nee na jafe gu istixaamatu jafee tax boo jegoon jëm ci sa kilifa mu woo boo jegoon jëm ci sa kilifa mu woo la lu yëngu nga gersu nee na lu bu la sa kilifa woowee te lu yëngu lu nekk nga gersu lu ku la wooyit nga dëpp. nee na ku la wooyit te nga dëpp. nekkoo ci la la war. nee na nekkoo ci la la war. fastaqimu ilayhi. nee na fastaqimu ilayhi. doo gersu. doo gersu. doo dëddu. doo dëddu. da ngay jublu rek. nee na da ngay jublu rek yàlla. te taxaw ci wasatiya. nee na te nga taxaw nak ci wasatiya. ci digg bi rek. nee na nga taxaw ci digg bi. sunu wayjur wii. nee na sunu wayjur wii. sunu kilifa gii laa bëgg a wax. nee na sunu kilifa gii laa a wax. di Cheikh Abdou Khadir. di Cheikh la meloon. noonu rek la meloon. te ñaanuk Serigne Touba sëñ Touba dafa wax ni. sëñ Touba dafa wax ni. xabli istiqaama. sëñ Touba dana xabli istiqaama. xabli istiqaama mooy. nee na nag er, xabli istiqaama mooy. yow sunu borom. yow sunu borom. may ma Cheikh Abdoul Khadir. may ma Cheikh Abdoul ndax Cheikh Abdoul Khadir mooy istiqaama. ndax Cheikh Abdoul Khadir mooy istiqaamatu. kon ñu ngi leen di sant bu baax. kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax. ci turu sëriñ bi nee na ci turu sëriñ bi. di rafetlu seen teewaay. di rafetlu seen teewaay. nee na yéen sunu mbokk yi def ngeen lu rafet. def ngeen li diina laaj. def ngeen ni dëkkandoo laat li ci sunu borom digle ci pay nag li ci sunu borom digle nag ci pay yéen ñëpp nee ñëpp ci daraje Cheikh Abdou Khadir ci daraje Cheikh Abdou na ngeen ci taseeg lu kawe seen lu kawe seen njortu moom mii di Cheikh Mamadou Bachir moom mii di Cheikh def sëriñ bi rek la ko nit def ni mu def sëriñ bi rek la ko nit ñi moom dafa am fulla nee na sëriñ Touba dafa am fulla te fullaam jooju nee na te fullaam jooju itam da taas murit yi da cee taas boo jàppee sëriñ Touba boo jàppee boole woo ko te boole woo koog dara. sëñ Tuubaa moo lay booleeg murid yi. sëñ Tuubaa moo lay booleeg murid la murid yi jàpp la. te duñ la booleeg dara te duñ la booleeg dara. wa min saadatil fata. wa min saadatil fata. haysu warat ne haysu warat. an laa yaruddahu. an si rasat. ni fuaadu si rasat. bokk na ci dalu xelug nit. bokk na ci dalu xelug nit. ak jàmm ji ko yalla yàllay defal. ak jàmm ji ko yàllay defal. mooy ku baax ku ne bëgg la. mooy ku baax ku ne bëgg la. ku ñëpp bëgg moom amul. na ku ñëpp bëgg ku ne amul. waaye ku ñu baax ñëpp bëgg am na. ku bàyyi xel sëñ bi ku ne. na ku bàyyi xel Cheikh Mamadou Bachir ku ne. sëñ ku bàyyi xel sëñ bu mag bi ku ne. nee na ëmbal nga Cheikh Mamadou Bachir miy cofeel. ngir jëmmi sëñ Touba ngir jëmmi Serigne Touba. ñu ngi sant ñëpp. nee na ñoo ngi koy baale ak bu baax. nee na di baalu mbooloo mépp ak. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh Abdourahmane moo yëgal Cheikh Bamba dikkam nga mbir maa rëy baatin ba a gana sem ci àdduna doy kéemaan Seex Bamba wax na ca lu tax muy ilimaan